demee boor bi la lañ lay wax boo demee boor bi lii ngay dëgg yaakaar nañ ñun ñëpp bëgg nañoo xam fan la dëgg bi féete parce que dëgg bi nag moom moo jara wax parce que ñun ñëpp moom la ñuy mu ngi noonu Fatou Abdou ginnaaw bu ma la nuyoo ba noppi ñu gis ne itam ah, yenn saay yi dañuy tudd ay mbirub torture ci biir prison yi li koy firndeel bokk na ci li nga xamante ne xew na foofee ca Maka Ziguinchor nga gis rapport boo xam ne tukkee na ci Amnesty International section Sénégal mhm. buy wax ci ay cas de torture wala sax mbootaayu xeet yi Nations Unies di jël exemple ci Sénégal ci parfois loo xam ne dañu ko fi nemmeeku comme des cas de torture dans les prisons mhm. et euh, leneen sax da koy gis ay exemple yoo xamante ne am na fi ay nit yoo xamante ne dañ leen torturer dans a mhm. a déglu xam ne moom mooy enquête préliminaire yi ñu téye foofu et mujjee mooy ñu ñàkk seen bakkan Médina déggoon nga fi ay jamono mhm. daanaka mënoo sax tudd tur am na ay jamono yoo xam ne euh, y avait une liste de de yoo xamante xamante ne Euh, ay torture euh, ci la ñu mujjee ñàkk seen bakkan loolu nag euh, dafa bokk ci liy bundu xataal àq ak yellee fi doomu aadama parce que nit ki day perdre sa liberté mais du perdre sa dignité mhm. et dignité moom mooy nga sàmmal ko àqam ak yellee fam bañ ko torturer bañ ko bundu xataal li nga xam ne yoon moom la teg ci kawam su fekkee ne moom dafa tooñ ñu teg ko ci kawam at yi mu war a tëdd mu tëdd ko su fekkee wax nañ ko juger ñu dem ñu juger ko déjà le Sénégal au Sénégal fii li fi posé problème les longues détentions mhm. préventives duñ la taxawal tribunal ñu la atte combien de jeunes aujourd'hui nga gis ne mhm. ñi ngi ci kaso bi depuis presque des années ñenn ñi pendant des mois ci loo xamante ne tey waroon nañu ko jël yóbbu ko peut-être flagrant délit atte ko ñu bàyyi leen ñibbi seen kër mais dañu fa yag lool rek forme de torture la morale boo xam ne nit ki également mi ngi koy dund ci biir kaso bi te amu ci solution et loolu je pense que war nañu ci gën a taxaw def ci ay saytu parce que bu ñu dee wax ne euh, nañu toll foo xamante ne war nañu am la juge des libertés loolu foog naa benn la ci li nga xamante ne dina indi solution ci les longues détentions préventives mais beneen bi ñu war a def un combat muy les droits de l'hommiste mooy torture yi nga xamante ne tey ñu ngi koy def un jeune muy koo ne majeur comme mineur ba mu mujj ci enquête soo tul enquête bi du yegg fenn foo xamante ne di nga ci mën a jàpp dara et tout le temps malheureusement ñu koy dund au Sénégal. am na solo Fatou Abdou dañuy àddu itam ci leneen lu soxal syndicat autonome bu liggéeykat yi euh, féetee. Euh, Sen'Eau ñoom nag meex ba futtu la ñu def ginnaaw bañ doon janoo ko taskatu xibaar yi nee nañ dañoo perte lu tollu ci fukki milliards ak juróom ci suñu ay kopparte nag loolee lu ko waral du lenn lu dul doxalin bu bon bi nga xamante ne directeur général bi mu ngi koy def loolee tax na nag ñu doon janoo ko taskatu xibaar yi ni ki tey jii ci suba ci teewaayu ki le di euh, Tidiane Diallo la woon ak Madani Marega Sen'Eau jot na perte quinze milliards de francs CFA ci at mi suñu sukkandikoo ci syndicat autonome des travailleurs des eaux du Sénégal. Sen'Eau fu mu toll def na quinze milliards de perte ak lu teg ba mu démarré janvier deux mille vingt léegi perte yooyu nag manque de performance boobu manque de bon management boobu bu ñu toppee di def ay nomination yi nga xam ne. basé wuñ ko ci mérite loolu day gën a suruxal entreprise bi. li ko waral mooy yorin bi bon bii di directeur bi di dawal ci entreprise bi. Oh, dafa am lu yéeme lu fi am dañu constaté fan yi daanaka weer yi génn yépp depuis ba màgget ñaa ñëwee ci poste directeur général bu seen Sen'Eau ay nomination di fal ñoo xam ne du seeni liggéey moo tax ñu fal leen di seeni njàmbarte moo tax ñu fal leen li tax ñu fal leen rek. mooy dañoo xaritoog DG bi wala ñu bokk si yenn syndicat yi nga xam ne dafa jege direction générale. ngir tàbb délégué yi nag liggéeykat yi di xamal waa conseil d'administration bi nag ànduñu ci digitalisation élection yi ndaxte loolu mun na indi jiixi jaaxa te nag ñu ngi woo ministre du travail na ci jóg. Tidjane jàlloo ba tey ci wàllu xibaar yi jëm ci wàllu rek luubal koppar bokk na ca nag lañu ñu séddale koppar ya ñu jagleel ñi le di daara yi te njiitu réew mi daal di koy joxe lu toll ci juróom benn milliard fële ca Kër Massar mu mel ni nag eh, ñi le di eh, imaam yi association wu maître coranique yi dañoo mer bu futu ci wàllu woowee ñoom dañoo jàpp ne toll nañ lu eh, toll nañ rek ci daara yi nga xamante ne jot nañ leen recensé ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñett ci ay daara waaye nee nañ fukk rek ci ñoom lañu jox boobi ndimbal te jàpp nañ ne lu nu mel awul ca yoon loolee nag la oustaz si Silla daal di xam ne ñu teewlu ko ak Idrissa Diémé wax ne benn milliard bi dañ ko jëndee pour séddale ko daara yi yeneen juróomi milliards yi nekk ay enveloppe ko gunge waaye li tax ñuy wax mooy dañ ko bëgg a xamal li li jot a jàllagul séddale ñu jaarul yoon fi mu war a ak si daara ji ak seegu fi même bu jógee ci moom tag na fan ko waaye tag na li si jot a gis Kër Massar gi rek di département bi li fi nekk mat na 418 daara liste bi fi bi ñu sédd ëppul fukk wala ko ñett daara lañ ci xam yeneen ni xamuñu leen te ñun ñoo jiite daara yi kon liñ bëgg mooy bu bëggee fekkee dañoo bëgg mu dox nañ woo ñu joxe liste su daara Kër saar yi ña ci war a am am ci ña ca am ci waaye li amagul nii moom jaarul yoon na xam ne li mu def même bu baaxee des na parce que ak suuf fa mu jëm. mu nekkoon Imam Makhtar Silla doon addu ci njàppandalu Idrissa Diémé euh, sof euh, Fatabdou suñu ñëwaatee un ci li nga xamante ne moom moo jëm ci li xew biir seen o nga gis ne euh, ñi leen di liggéeykat yi génn nañ ne dañoo def perte te dara waralu ko lu dul yenn ci doxalin wu direction générale bi. waaye wax nañu ci li nga xam ne moom mooy seen potum biir ñoom ci seen biir entreprise. Mm-hmm. jàpp nañu ne foofu amul méritocratie faaw nga jege ki nga xamante ne moom mooy DG bi pour que ñu tab la ñu teg la ci kanam loolu nag di seen jàmbatu ñoom biir boo xamante ne euh, war nañu mën a également tataan euh, direction bi ci par rapport ak loolu nga xam ne euh, liggéeykat yi teg nañu ko ci kaw bërëbu liggéeyukaay boobu maintenant. Mm-hmm. wax nañu. 15 milliards de pertes boo xam ne Sen'Eau am na ko j'espère que ces 15 milliards de pertes yooyu Sen'Eau aw du sénégalais ñoo koy fay. parce que déjà seen o moom yaakaar naa ne bu weesoo ñoom seenal coow ñu nag seen o sénégalais yi je pense que am na lu ci bari lu ci mën a wax. parce que bi ñuy ñëw dañ ñu promettre woon de l'eau en abondance en bon qualité. et à un faible prix maanaam njëg li dina wàññeeku dana am qualité teg ci danañ ko am ba mu doy ñett yi benn mu ci. ndox mi amul qualité. yenn saa yi da ngay ubbi bi rek mu daal di xonk. ma ne la pour mu làpp pour nga sax jàpp ci c'est tout un problème bu dee da ngaa jóg fajar boo demee ci ay zone yu ci mel ne parcelle soo tijjee ndox mi fajar dafay xonk cur y a d'autres yoo xam ne également dañu koy dund nga ñëw ay yenn zone yu ci mel ne Yoff virage jëm kaw ndox en abondance amu fa Nord Foire Ouest Foire guddi ngay tijji en période de chaleur pour nga am ndox parce que ba waxee ñun la c'est la forte demande. Mhm. xam nga kon mooy ñaar yoo xam ne dig nañu ko amuñu ko. amuñu qualité cest à ndox mu baax amuñu ko en abondance amuñu ko beneen bi mooy daanaka moo courant bi soree wuñu ci cherté. da ngay gis facture boo xamante ne nit yenn saa yi dala koy jàmbar wala mu wala téléphone wax la ko yow mii di toog ci plateau yi que jot facture boo xamante ne soo leen woowee amuñu benn explication mu la jox dul est-ce que amoo fuite d'eau sa kër alors qu'il n'en yokk facture yi ci ay kër yoo xamante ne li ñuy fay kenn xamul nu mu toll nga jóge ci benn étape dem ci benn étape amul amuñu pour def déplacement ñëw contrôler li nga xamante ne moom mooy compteur bi wala ñu def seen liggéey bi nga xamante ne moom lañu war a def duñ ko ci def donc c'est un problème boo xamante ne kër googu am na ko alors que bi muy ñëw dañ ne nañu préféré jël seen o ndax Sénégal mën a am ay du yomb ci li nga xamante ne mooy ndox mi jot ci te it anam goo xam ne baax na problème la boo xam ne man li may laaj rek mooy seen 15 milliards de perte yooyu buñ ko fayloo Sénégalais yi parce que Sénégalais yi nañu déjà mhm. ci nga xam ne moom la ñuy jànkonteel ak seen eau am na solo Fatou Abdou dañuy àddu itam ci leneen lu soxal wàllu politique bi la yoon ginnaaw nag. Euh, contrôle le parrainage bi conseil constitutionnel fas yéene soobu euh, ci leneen loo xamante ne ne virage bu mujj la jëm ci wàllu rek euh, vérification ñeel pièce justificative yi nga xamante ne day accompagner dossier wu candidat yi mu mel ni juge constitutionnel bi moom itam am na pouvoir boo xamante ne may na ko itam mu jéem a interpréter jëm ci wàllub rek xool ndax mën naa valider am déet lii di dossier wu candidat la ko may du lenn lu dul article L 125 mu mel ni nag Eh, bu ñu ca génnee eh, wow ki nga xamante ne moo di Bassirou Diomaye fay naka noonu itam Karim Wade Khalifa Sall ba ci sax ki nga xamante ne moo di Déthié Fall ak Habib Sy ñeneen ñëpp bu ñu tëddee nag